asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 dalee na jàmm ci seen émission SOS santé ñu ci dalal nag ajuma euh, ju jot ay kàngam yoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu euh, wérgu yaram tey nag ñu am mbégte di ci dalal ki nga xamante ni moom mooy euh, Mamadou lamin Diouf docteur Mamadou lamin Diouf docteur Mamadou Lamine Diouf nag nekk koo xamante ni kon mu ngi nekk pédopsychiatre nekk pédopsychiatre jiite service bi nga xam ne mooy yëngu ci wàllu woowu fële nga xam ne moom mooy kon ca hôpital euh, psychiatrique euh, bu euh, kon Thiaroye docteur ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi di fay bu baax madame Diallo. ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci nangu gi nga xam ne nangu nga ko ànd ak ñun tey ci suñu émission SOS santé tey ji comme ni ma ko waxee docteur yaa ngi nekk pédopsychiatre mun nga ñëw tuuti ci lan mooy pédopsychiatre. waaw pédopsychiatrie benn bànqaas la ci spécialité médecine yi xam nga boo jàngee médecine ba def sa thèse. mën nga choisir def médecine général mooy médecin généraliste yi wala nga spécialisé wu donc euh, pédopsychiatrie benn la ci spécialité yi benn ci banqaas yi boo xam ne ni day saytu ak di jéem a faj lépp luy euh, jàngoro xel ci xale ak ci waxambaane mm-hmm. donc mooy pédo bi mm-hmm. sinon psychiatrie moytu tout médecin yi nga xam ne ñooy faj problème mu xel mm-hmm. Euh, ci nit ñi donc mm-hmm. pédo bi mooy ci xale yi ak ci waxambaane yi. Mm-hmm. mu nekk lu am solo tey jii nii euh, ñu ngi waxtaanee sujet bi nga xam ne moom mooy autisme. Mm-hmm. autisme nag nekk ab feebar boo xamante ne euh, um bëri na ñoo xam ne umpale nañu moom mooy lan fii ci biir réew mi prétexte bi tey moom mooy bés bi nga xam ne moom lañ ko jagleel ci wàllu àdduna wërngal këpp feebaru autisme démb lañ ko doon màggal di ñaari fan ci weeru kon avril. tey ñu fas yéene ci def taxaw seetlu lan mooy autisme. waaw di la jaajëfal ci occasion bi ñu may pour ñu jéem a sensibiliser waat euh, ci wàllu autisme euh, <clears throat> li ci jafe mooy euh, feebar bi am na ñàkk na mës na yàgg na am ci Afrique mës na am mais comme duñ ko jox turu tubaab bi moo tax xam nga ñun ci suñu aada moom bu amee problème mu xel surtout xale yooyu rek dañuy jàpp ne rab la jinne la wala maam yi ñoo def nii wala def na le donc tur bi lañu xam mais buñ koy mandargaal da nga naan autisme euh, feebaru xel la buy daal xale. Mhm. Euh, dañu jàpp ne avant ñetti at ci dundam feebar bi dugg na ko. Mhm. de sorte que ci wàllu développement am ni muy màggee dafay am euh, ay perturbations yu bëri ci wàllu ni mu war a jëflanteeg ñeneen ñi mooy relation. Mhm. Euh, ci wàllu communication maanaam ñu ci gën a bëri souvent bu ñu nekk xale duñ mën a wax wala wax bi bu ñëwee quelques mots la wala ay école yi di répéter tout le temps baat yi ñu koy wax boo ko ne noo tudd mooy la noo tudd mhm. dem mooy fooy dem et cetera mhm. boole kook euh, ci seen nekkin souvent dañuy ànd ak souvent dañuy def ay crise soit euh, di di dóoraate di yëngatu lu bëri hyperactif. Mhm. duñ toog benn place. ce qui fekk que globalement seen euh, màgg dafay am non seulement retard ci wàllu yu bëri. Mhm. mais euh, dafay jur aussi bu ñu waree dem école euh, souvent duñ ko mën parce que duñ comportement bi école laaj ak peut-être xëy na dal bi ak mën a dégloo mën a comprendre bi école laaj du duñ ko mën. Mhm. muy jural nag jafe-jafe yu bëri ci njaboot yi nga xam ne yi dal na leen. Mhm. Parce que euh, il faudra trouver des moyens pour les scolariser, il faudra trouver des moyens pour jéem a faj yenn débordement ak yenn trouble yi ñuy présenté. Mhm. tey mu ñu comprendre bu baax li nga wax docteur mu nekk feebar moom dañ koy judduwaale mais est-ce que tey feebar boobu dafay fekk ne euh, danga am foo ko jëlee wala malformation la wala exactement fan lan mooy cause yi. waaw donc ça c'est une question importante malheureusement fi jamono ji ñu may wax yow jàpp gisaguñu benn cause mënaguñ teg baaraam ci benn mbir ne lii moo indi autisme. Mhm. Euh, am na des hypothèses maanaam euh, études yi ñu ngi avancé bu baax gis nañ bu njëkk dañoo jàppoon ne xel mi moo jaxasoo comme euh, par exemple nii suñu ci suñu aada yi mën a jàppee ne boo dañ ko dañ ko liggéey. wala mhm. dañoo liggéey yoon yaay ji teel dem ci moom. Mhm. wala euh, xëy na aada yi topp ñu ko bu baax donc maam yi mer donc fayu ci xale bi. Mhm. wala jinne ko mbéj ak yooyu xam nga yooyu hypothèse la yoo xam ne yi suñu ci wàllu suñu cosaan ak aada moom la ñu am. Mhm. de l' autre côté ci wàllu médecine occidentale aussi am nañu ay hypothèse hypothèse yi gën a wóor tey mooy bi xel mi fa muy sokkee xam nga boo nekk sa biiru waajur. Euh, xel mi ak cër yi ñi commencé développé wu jóge ci embryon dem ci fœtus ak yooyu. Mhm. noonu xel mi di développé woo. Mhm. am na jamono joo xam ne y a eu des perturbations euh, yoo xam ne yi bu xale bi juddoo déjà feebar baa ngi ci moom. Mhm. du teel a fës parce que bébé moom nàmpal lañ ci xam ak yooyu ci suñu aada fi nàmpal sang changer couche ak yooyu. bu demee nag bu war a commencé dox des fois xaw a tardé bu commencé wax. wax bi ñëwul ba deux ans trois ans ñu soog a commencé ah, am na lu kii daal xëy na peut-être am na lu xew. Mhm. am na ñoo xam ne sax dañu koy bàyyi ci kër gi muy taxawaalu lu kii ba. wala dugg école morom yi dugg école ñu ak ah, kii day du mënta dugg école. Mhm. wala bu ñu essayé bu ñu demee école école leen kii day. foog ngeen def seeti spécialiste pédopsychiatre mu xool parce que am na lu am si moom bu boobaa lañ ñu ko mën a jàpp. Mhm. donc ma jàpp ci cause yi loolu la donc du loo xam ne lii dafay jógee ci yaay wala jógee ci papa. bu njëkk xalaatoon lañ ne xëy na peut-être euh, façon yarin yeeg yooyu ci kër yi mooy tax wala am ay traumatisme ak yooyu tey jii loolu dàq nañ ko on plus sur une hypothèse neurodéveloppementale ci développement neurologique bi y a eu des perturbations mais tegaguñ ci baaraam nag mais études yi ñu def yëpp day wane ne ci xale yooyu am nañ ci quelques perturbations. Mhm. mu nekk kon loo xam ne quand dina métti ci parent yi euh, parce que xale boobu noonu peut-être tey am na loo xam ne dafa wax ci moom toppatoo beeg yu demee noonu donc tey côté médical bi xale boobu lan mooy nekk toppatoo bi wax ci moom. absolument parce que euh, surtout suñu suñu dëkk yi nga xam ne yi peut-être doole gi bëriwul. Mhm. Euh, dafay laaj déjà ci développement euh, ñu war ko mën a mën a diagnostiquer déjà ne autisme la. Mhm. benn ñaareel ba ñu war a mën a nag xool lan la soxla ci ndimbal pour que développement bi jëm kanam. Mhm. Euh, bu demee ba ci trois ans waxul c'est sûr que parents yi dañ ah kii foog ñu dimbale ko pour mu wax. Mhm. ñooñu souvent c'est les orthophonistes c'est ay spécialistes lañu ay paramédicaux ñoom ñooy toppatoo wàllu langage bi. Mm-hmm. bëriwul ci réew mi ci gën a bëri pratiquement tous ils sont à Dakar. et mm. tous pour ne pas dire moins une. sont dans le privé donc consultation yu cher la. Mm-hmm. donc beaucoup de familles yoo xam ne yi amuñu ay moyens mënuñu ci mënuñu mënuñu am yooyu soin. Mm-hmm. en plus euh, d'une autre façon bu fekkee ne xale bi dafa bëri ay comportement yu xaw a perturbé yëngatu euh, di angoissé di def ay crise bëri lu muy ragal boole kooku enfermé wu dans son monde Mhm. dafa am ay soins pédopsychiatrie ñu wax hôpital de jour. Euh, nga xam ne dafay ñëw tous les matins ñu def ak moom activité pour euh, dimbale ko mu màgg euh, mën a am de bonnes relations avec la société. Mhm. hôpital de jour boobu ça demande aussi des moyens ça demande du transport tous les jours indi ko jël si ko et tout et ça c'est extrêmement difficile. Mhm. pour les familles qui ont peu de moyens surtout sur Dakar li le reste des régions il y a rien du tout. ah kon léegi ah, ñoom dina dina metti ci ñoom peut-être ñu ci yeneen régions yi. bokk na ci suñuy combat de faire comment faire pour que quand même dans les régions mu am un peu un peu d'aide lu ñu leen di apporter. Hmm. Euh, nguur gi <laughs> ñu suivre gul trop sur ça mais. d'accord euh, ñu ngi ñu ngi continuer am yaakaar. pour hmm. des familles un peu aisées. Hmm. danañ jéem a malgré après soins yooyu yëpp jéem a scolariser xale bi. donc parce que l'objectif aussi c'est que mu dem école jàng tuuti. et voilà Et donc, euh, les écoles, il y en a quelques-unes, des écoles spécialisées, voilà écoles ordinaires, yoo xam ne ñu am ay classes spécialisées pour ce type d'enfants. Mm et yooyu aussi malheureusement ci gën a bëri nekk Dakar c'est pas très accessible aux aux familles les plus démunies. Mm donc euh, message bi foofu mooy métti na trop sur les sur les familles et en l'absence de sécurité sociale pour jël yooyu yëpp en charge. c'est les familles ñoom ñooy génn ci seen poche. seen poche di ko voilà à ma donné euh, duñ ko mën. Mhm. tey jii ki nga euh, xam ne xale la moo am autisme dinañ ñëwaat ci baax ci moyen mhm. coté autorité surtout xam naa ci côté fin bi mais euh, lu jëm ci feebar bi encore li nga xam ne mooy mhm. autisme tey est-ce que en dehors de yooyu nga doon wax sànq muy ay signes xam ne uh-huh. par exemple nit ki ko xam ki mu dëkkal moo ko mën gis mais tey jii koo xam ne xale bu génn ci mbedd mi rek est-ce que mën nga gis ne tàkk ne kii nii dafa am autisme ci peut-être am na ay màndarga yi muy wone yu noonu. waaw tout à fait tout à fait mën nañ ko xàmmee parce que souvent euh, ñu ci gën a bëri bu dee autisme pur déjà duñ mën a wax boo bu ñu leen gisee ci mbedd mi saxaal ba wax ak ñoom duñ la faale. Mhm. cest à c'est des enfants yoo dañu nekk seen benn lu mel ni ci seen benn monde à part ñoom. booy xam moom day mel ni nekkoo fi. Mhm. donc déjà c'est un premier une chose. bu réeree par exemple c'est toute une euh, difficulté la parce que mënoo ko laaj mu wax la du la sax faale. Mhm. ensuite parfois ils ont ce qu'on appelle des stéréotypes yi ay gestes yu yu ñuy xaw a def ci seen seen cër wala seen loxo yooyu. Mhm. bu lay wan kii am na ay xëy na am na lu ko lu ko dal. donc mhm. neex na xàmmee même bu fekkee yow miinu xale bi. boo ko jegee tuuti jéem a wax ak moom jéem a agir ak moom rek. mën nga xam ne kii xëy am ñàkk lu ko dal. Euh, troisièmement bi ci wàllu euh, communication bi toujours. am na ci ñoo xam ne mën nañu accès à une communication mais li ma doon wax communication bi dafay des c'est souvent écolalique. donc mhm. boo ko noo tudd mooy la noo tudd nga xam ne kii ah. di répéter daal voilà bon. Euh, entre autre chose par exemple certains parents di jéem a yóbbu par exemple supermarché dafa ñoom les courses. daa da nga gis carrément que l'enfant est un peu perdu bu ko miinul trop. Euh, mën na def crise ci biir magasin bi wala même ci mbedd bi du def attention ci nit ñi wala def attention ci oto yi jàll ak yooyu yooyu yëpp c'est des ay mandarga la. Mhm. buy wane ne kii am na lu nekk ci moom. Mhm. Euh, tey xale bi nga xam ne am na autisme euh, tey ji <laughs> moom mi nga xam ne par exemple parce que si ñi bokk na ci sànq li nga doon wax au bi mooy ñàkk mën a wax bi ak yéex a mën a wax bi tey kon ça veut que kon du autisme yëpp autiste yëpp plutôt ñoom ñooy am problème mu langage parce que sànq nee am na ñoo xam ne dañuy toppandoo wax ji. tout à fait mm. absolument et ça c'est très important parce mm. que euh, bu njëkk dañu jàppoon ne euh, xale yi daal jarul sonn ci ñoom parce que euh, nii la ñuy màggee nii la ñuy mës a mel à la amul y a pas mm-hmm. tey jii am nañu ci études yu ñu def feneen ak ñun du ñuy remarquer ñun fii nii Euh, day gis ne s'il y a une bonne prise en charge maanaam xale yi buñ ko fajee faj bi war toppatoo bi mhm. war ñu ci bëri dañuy dem ba am accéder en langage normal comme man ni mhm. ma wax ak yow nii mhm. langage dana touti tuuti particularité sur le sur le ton de la voix sur ni muy utiliser yenn formule yeeg yooyu mais dans l'ensemble dañ mën a wax normal tey au niveau mondial am nañu des grands des grands auteurs yoo xam ne yi ay autistes lañu woon yu ñu xam tey jii génn nañ ci autisme bi ils font des conférences ils écrivent des dañuy bind ay livres di gën mm-hmm. gën ñu xamal euh, luy autisme ca bañ ko doon dund. Mm-hmm. ah mën naa ci cité Temple Grandin par exemple kenn ku ñuy wax Joseph Chovanec. Mm-hmm. wala Bridget Harrison c' est des c' des autistes. mais euh, faj nañ leen dimbale nañ leen ba tey ji autisme bi daanaka génn na ci ñoom wala en tout cas feeñatul bu baax donc ñoom dañuy ils peuvent accéder à ça. même euh, ñi nga xam ne nii accéder wuñu au langage ils ont d'autres compétences. Mhm. am nañ yeneen capacité yoo xam ne yi am nañu man fii sama service bi fii euh, mbaaw am nañ fi xale yoo xam ne yi mënuñu wax. mais par exemple nga tegal leen benn puzzle bu cent pièces am na ci ñaar ñoo xam ne puzzle de cent pièces ñu defal la ko tout de suite en une heure. loo xam ne mm. li yow ko biñ la man semaine danaa ko ci def du ma a def puzzle bi. Mm. c'est un exemple justement foofu docteur Diouf parce que dañuy faral di wax ni ñii di autistes dañuy am intelligence bu rëy a rëy kon li nga wax ni aw na ko dëggal tuuti. tout à fait waaw du ñëpp mais nag effectivement am na ci ñu bëri ñoo xam ne ñi Euh, bu ñu leen saytoo bu baax danañ gis ci ñoom ay compétence yoo xam ne fois mhm. xam nga bii ma la wax si dafa yéem. am na ci ñoo xam ne ñi boo joxee tey ordinateur. ñu defal la ci loo xam ne da ngay waaru. Mhm. alors que boo leen ne demal ci bitig bi jëndali ma euh, biscuit wala wala soble. Mhm. du ñu xam luy loolu. duñ comprendre et cetera donc mu laaj nag ci ku ci loolu daloo nga xam moo dal nga ñëw ñu ñu saytu ko dañuy def évaluation des compétences. sur tous les domaines. souvent dañ ci gis domaine boo xam ne bi à la limite mën nga ne génie la ci wala am na ci compétence. Mhm. te boo jaaree ci prof ndol boobu mu la may rek mën nga ko non seulement danga koy valoriser mu développer compétence boobu. Mhm. mais day dem ba mën na koo dimbali ci yeneen domaines yi nga xam ne daf ci nekk en retard ba yooyu yëpp ñu avancé. Mhm. donc aussi faj bi aussi noonu la ñu noonu la ñu koy defee. donc bu parent jàpp ne daal kii nii la mel amul yaakaar euh, nañ ko bàyyi ci kër gi muy wër wala bàyyi ko ci mbedd mi muy taxawaalu. souvent bu ñu leen dimbalee rek ñu dem il faut ñu pousse leen bu baax rek bu ñu leen poussé ñu ci bëri dinañ dem. justement li ngay gis euh, mm. waaw. Mm. li ngay wax ni c'est important euh, docteur euh, Diouf parce que. Euh, interrogé nañ benn maman koo xamante ne moom doomam dafa am euh, feebar bi mais dafa gën a ñaax ñi nga xam ne ñoom ñooy parents yi pour ñu gën a bàyyi xel ci seen doom yi toppatoo leen bañ leen euh, beddi toppatoo leen daal ba suivre leen ba nga xamante ne ñu mën a am euh, li nga xam ne moom moo gën ci ñoom donc dañuy déglu rek ki nga xam ne moom mooy Aminata Fall madame ñaan moom mu expliqué ñu kaawam bu ko defee ñu daal di dellu si. man sama doom bi ma am at ak genn wàll ci la ñu seetlu ni daawul woon wax. daawul woon wax comme ni ma ko waxee ne la rek dana nekkul xale bu yëngatu da doon def lépp lu xam ne rek moo ko neex maanaam dem ci kanamu seetu taxaw di xool boppam moom na gis boppam rek soo ko teree seetu bi sax mën na dem gis lu mel ni objet buy melax wala dara mu taxaw pour rek xool si boppam wala mu toog ba si yàgg di jooy wala mu toog ba si yàgg di reetaan doo xam lan moo ko metti voilà loolu na bi mu amee dañoo daal di jóg ni kii daal gannaaw mook ay moromam ñoo nekk te boobu ba tey waxul te ñu ko yóbbu ci école boo xam ne dina fa mën a bu gisee ay yeneen moromam dina wax bu ñu tamit loolu la indiwaat directeur daal ñuy ñu kat kii est ce que du ngeen seen ndax yooyu jëlee noonu nag ci ñu yóbbu ko fi nga xam ne mooy euh, unité pédopsychiatrique bu bu Fann voilà loolu daal moo ñu moo moo mooy li nga xam ne moom moo ñu kii ba ñu jóg commencé prise en charge bi waaw ta tàmbali tàmbali paj bi laataa sama doom di judd mosumaa xam sax lan mooy autisme mosumaa xam lan mooy autisme te tamit nangu woon ko tamit metti woon na metti woon na parce que papaam daan na ma ko wax ni ma es ce que doo ko xool ndax amul tuuti ay jafe-jafe ma ne ko déedéet. Mm-hmm. ki dafa yéex a wax rek a yooyu mais xale bi dara jot ko. waaw jafe woon na nag jafe woon na trop ci commencement bi parce que xale yi dañoo soxla ñu ñu ñu ñu comprendre leen maanaam il faut nga mën a dal il faut nga mën a nangu mën a xool naka ngay mën a nekkee ñoom. lu nekk nag daan nga ko si dégg demal seeti est-ce que amul lu mu àndal ak xale yi dañoo faral di am ay rab yooyu yëpp. Mhm. mais loolu yëpp tamit dëgg la mën nga si def ay ñaan mën nga si def ay leneen waaye ma si. Mm-hmm. ëppaluma si te tamit bàyyiwuma wàllu paj bi mm-hmm. wàllu paj bi dama ko topp wàllu hôpital bi dama koo topp mm-hmm. muñ ak takku parce que ku ci nekk sa doom ni nga ko téye rek noonu la ko keneen noonu la ko ñeneen ñi di téye yow yaa mën a fexe ba nga xam ne li war ci xale bi nga def ko yow yaa mën a xamal ñi nga dendal ñi nga ñi nga ñi nga ñi nga dëkkal ñi si mbedd mi nga xam ni xale bi ah wute naa ñeneen ñi waaye xale la comme ñëpp voilà parce que ñoom yenn saa ñu def yoo xam ni ñu comprendre ne yow waajur bi tamit nga muñ te xam ne lu nekk nag di nga ko dégg mais nag comme ni ma la wax rek yow yaay takku yow yaay farlu yow yaay jéem a muñ toppatoo sa doom mhm. xam nga comprendre sa doom di doxam ak moom di di dem ak moom ndànk ba li nga bëgg rek yàlla may la ko si. voilà kon docteur li nga doon wax sànq gisaat nañ moom mooy kon euh, parents yi dañu war a gën a farlu. ah tout à fait tout à fait man may jëfal euh, vraiment les parents surtout les mamans. Mhm. boo góor ñi sont pas en am na ci ñoo xam ne aussi xaw nañ ci sawar mais si surtout li ñu gis mooy yaay yi ñooy gën a euh, sawar ci. Euh, indi seen doom parce que effectivement ci suñu <laughs> voilà waaw xam nga ah. nag suñu suñuy aada réew suñu cosaan Euh, doom nee nañu liggéey ndey añub doom donc bu doom ji amee problème rek. di ci gën a souvent dañuy joxoñ yaay ji. donc mhm. bu sa doom doom ñu melee ni yaay ji la alors que du ci yaay ji. ma wax ko mu leer ci yeneen culture yeneen aada yeneen pays yeneen continent même feebar bi am na fa te xam nga mënoo ne yaay yaay la wala séyam séyam rafetu loolu yi demee noonu. Mhm. donc may gën a encourager les parents donc euh, muy madame ñaan boobu association bi mu nekk. Mhm. ñun fi ñu nekk aussi am na benn association de parents. jigéen ñi ci gën a farlu. Mhm. am nañu au niveau national benn association réseau autisme Sénégal jigéen ñi ci gën a farlu bien que am nay góor quand même. Mhm. Euh, ñoo ñëpp ñu ngi yëngu pour que quand même nguur gi les autorités bàyyi xel bu baax. Euh, xale yi am handicap d'une manière générale handicap mental euh, d'une manière particulière autisme de manière plus spécifique mhm. et donc euh, mu des rek ci nguur gi ak xëy na yeneen yenn mécènes yi yenn bailleurs de fonds yi ñu jàpp ci pour que moyens yi gën a am pour que xale yooyu ñu jël leen en charge ni mu waree d'abord fii ci Dakar des na encore mais surtout ñu mën ko lawal ba ci yeneen région yi ci Sénégal. Mhm. Euh, tey euh, docteur Diouf euh, ki nga xam ne par exemple moom mu ngi am autisme est-ce que am ngeen tey par exemple benn genre u évaluation bu ngeen ci def parce que yaa ngi ko doon wax sànq ay diwaan yu bëri du ñu am accès gaaw pour mën a vraiment saytu seen doom tey stade ban la en général nit parents yi di ñëw ci ci yéen boo koy xayma. waaw malheureusement très en retard. Mhm. ñoom souvent bu ñuy ñëw day fekk na boobu xëy na weesu na. Mhm. Euh, li ñu ci ñun li ñu ci remarqué euh, mooy que très souvent euh, première année yi dañuy xool xale bi rek naan xëy na peut-être dafa retard mais dana ñëw. Mhm. seen environnement wax naan ah dana mës a wax dana mës a dana def nii. bu ñu demee ba quatre ans cinq ans waxul. boole ko il n'est pas mënul demal boppam cabinet des cabinets ci tubéy tubéy bi des mm-hmm. fois mu def ay crise dooraateg yooyu mm-hmm. mu débordé di gën a di gën a bëri sëriñ yi la ñu njëkk a dem mm-hmm. xam nga loolu aussi ci suñu aadala la bokk donc euh, uh-huh. voilà dem ci maaman yi wër wër wër wër euh, seen xaalis jeex fa souvent en balaa ñuy ñëw ay sept ans huit ans dix ans la ñuy soog a si parfois même plus ah la ñuy soog a yegg ci ñun te boobu fekk na bu fekkoon ne jël nañ xale bi dès l'âge de deux ans trois ans fekk euh, weesu na foofu yëpp man ci yenn euh, famille yi nga xam ne xaw nañu jaxlaf wala ils sont très ouverts mm-hmm. dañuy teel a indi xale bi vers un an et demi deux ans mm-hmm. ñu indi ko et donc boo leen suivre sur trois ans quatre ans nga gis ne xale bi progressé na ba fi ñu toll ni mën na dem école mm-hmm. mu ngi def ay résultats euh, bu demee ba gën a màgg niveau collège ak yooyu même bu fekkee ne on a pas de mu nekk un génie euh, surtout. Mhm. mën a mën a jàng métier yoral boppam autonome. Mhm. donc c'est un peu ça l'objectif. Mhm. donc euh, malheureusement ce retard retard au niveau diagnostic. et retard au niveau prise en charge bi moom c'est une c'est réalité. et lu ñuy méttitlu la des fois da naan xëy na peut-être ñene ca àll ba ñoo xamul mais. Euh, même ñu ne fii Dakar dañuy gis xam ne nii caaroy bii la nekk. Mhm. Euh, dix ans douze ans lay soog indi doomam fii alors que ci même quartier bi la. Mhm. foo nekkoon mu ne ah euh, ngoon kër ga wala topp ma nii ah dina ko wax carrément et malheureusement sax loolu dafay tardeel et dafay gën a jafeel aussi faj mi. Mhm. voilà ba tey docteur Diouf dañuy suivre beneen reportage buy wane rek ni askan wi ñu bëri xamuñu lan mooy autisme euh, voilà donc dañ ciy ànd ak sunu naataango Memba Dramé ci reportage bu ko defee ñu dellu siwaat autisme nag mu nekk ab jàngoro joo xam ne nag la nga xam ne nag moom moo jëm ci cerveau bi lay daal di laal ba tax na ñu ci bari nag ñoom xamuñu ko li ci mel ni ki nga xam ni moom moo di soxna Aysatu Sabali soxna si ndax xam nga euh, autisme autisme mooy lan mu wuteeg loolu gis-gis ak ki nga xam ni moom moo di Roger ak Mamadou Ndiaye ñoom ñi nga xam ni xam nañ jàngoro jàngoro bi. autisme mooy ñi nga xam ne dañoo am ay feebaru xel quoi seen xel yi doxul carrément quoi. feebar bu jàpp xel la te feebar bu jàpp xel rek dañu war a jàpp ne feebar la comme feebar yëpp. bu nu sukkandikoo ci Mamadou Ndiaye mu jàpp ni ña nga xam ni nag ñoom ñoo am jàngoro bi ni mel ñoom dañ leen xaw a beddi ci askan wi li ni mel nag lay ñaawlu. xoolee comme lu loo xamante ne nit ki moo ko teg boppam daal voilà nit ki comme teg ko boppam nag dañ ko war a déglu ko comme ni ñuy faje yeneen yëpp te bañ di ko kókkali bañ di ko bañ daal di maanaam ku ko am waa di ko kekkantoo daal ba pare daal loolu dafay métti ci ki feebar quoi ba tax na mi ngi woo askan bi ci wàllum sensibilisation ci jàngoro bi ni mel dañu war a gën a sensibiliser nit ñi ci prise de conscience surtout quoi ci autisme ak yeneen maladie yëpp parce que nit ñi war nañ xam ne du feebar boo xam da ngay gis sax ñu ko ñu mu dal ñëpp dañ leen tuddee ay tur xam ay moodu lii kii lii xam nga voilà rafetul quoi rafetul bon rafetul ñooñu mën nañ leen récupérer faj leen boole leen suñu biir quoi autisme mu nekk ab jàngoro joo xam ne ñi nga xam ni ñoom ñoo di gérer famille yi ñoom dañ ciy sonn loolu ba tax na dañu war a sensibiliser askan wi ci li nga xam ni moo jëm ci jàngoro bi ni mel. voilà euh, ñu gis ne docteur Diouf euh, feebar bi reportage bi wane na ko nit ñi xamuñu lan mooy. autisme tey sensibilisation bi est-ce que yéen ñii di yëngu ci loolu xaw leen ci péché tuuti. Euh, waaw bon xëy na xëy na mm-hmm. parce que. Euh, moyens yi pour def sensibilisation bi doyul. Mhm. ñu ngi ñu ngi jéem. par exemple chaque 2 avril effectivement ñu ñi dañuy intervenir ak ci yeneen dañuy intervenir ci presse bi. Mhm. Euh, après ci qui est difficile mooy euh, mën a tudd jàngoro bi ci làkku nit ñi wala ci ñoom niñ ko xamee. Mhm. xam nga boo nee feebaru xel rek yow déjà da nga xam mooy lan. mais buñ ne autisme comme suñu làkk amul autisme. wolof amu ko séeréer amu ko neneen lañ ko doon waxee bo hmm. ci séeréer am na cas yoo xam ne dañ naan la a euh, ci da paaxeer wala bu dee wolof ñu ne nit ku bon enfant nit ku bon hmm. yooyu ay tur tur la woon biñ gisee ne boo leen waxee ci wàll woowu danañ danañ jéem a xam li ngay wax hmm. mais boo ne autisme rek duñu xam mooy dafa mel ni par exemple. turu olof yooyu mën na nekk ay yu voilà mu ngoog c'est surtout ça. Mm-hmm. bon xam nga yooyu moom nit ku bon moom du lu du lu du lu lu neex a dégg. Mm-hmm. Mm-hmm. ah euh, donc ñuy wax autisme rek mais effectivement sensibilisation bi des na bu baax euh, bu weesoo sensibilisation service yi war a jël ñooñu en charge aussi des na bu baax mais loolu dafay dellu rek ci le fait que Sénégal autorité yi. Euh, joxuñu gëdd ni mu waree lépp luy wàllu jàngoroy xel d'une manière générale tout ce qui est santé d'une manière générale joxuñu ko gëdd bu baax euh, loolu nag euh, mën nañ leen ci yedd ou su ñu nekk pays yu développé moyens yi bëriwul donc dañ koy cibler souvent sur bu njëkk c'était sur les maladies infectieuses palu euh, tuberculose ak sida ak yooyu tey ñu ngi ci maladies cardiovasculaires yeeg maladies rénales yeeg yooyu Euh, xëy na ëllëg ëllëgu santé mentale lay doon ñun am nañ ci yaakaar ñun ci xeex bu baax. Mm. pour que santé mentale autorité yi gën ko fulaal. Mm. ñaareel bi population yi aussi. ndax euh, euh, muy yow muy man mm. souvent problème mu xel bu amee ci famille li ñuy njëkk xalaat mooy dem seeti maaman yi mhm. bu ko defee ñu ne la kii de du wàllu docteur kii euh, rab la kii jinne la kii loolu la bu ko defee doo xalaat mukk ne lii xëy na hôpital mën na ko faj mhm. te pourtant ñëpp xam nañu dans le langage populaire boo nit ki amee ba xel dañ naan la kii est-ce que duñ ko yóbbu faan donc muy mhm. waral ne am na ay services yu mën a faj loolu ci mag ñi xëy na peut-être c'est un réflexe ci xale yi des na tuuti encore donc ñun à chaque fois dañuy ñaax parents yi di agir aussi au niveau des communautés donc école yi souvent ñoom ñoo ñuy référé déjà école yi ñu ci bëri fi ñu nii xam nañ ne xale bi boo amee tel ou tel retard tel ou telle particularité ci comportement am euh, école yi ñoo njëkk ne kii yóbbu ko ci spécialiste mu xool ko d'abord et puis moom mën ñu gën a dimbale par rapport à sa scolarisation. Mm-hmm. mais effectivement sensibilisation bi des na. Mm-hmm. est-ce que tey sax ministère am na genre programme buy yëngu wàllu ci autisme ak yooyu. Euh, disons que bon am na benn jéego bu ñu def année yi passé donc léegi am nañ benn division bu ñu division santé mm-hmm. euh, bu njëkk bureau la woon léegi division la division bi am na ay points focaux am na ci benn ci point focaux yi boo xam ne bii euh, mooy saytu wàllu santimental mentale enfant ak yaay yi donc mais amul un programme dédié à l'autisme. Mm-hmm. benn ñaareel bi division ba xam naa ne ay moyens moyens yi ñu ko jox aussi doyul donc euh, l'idée mooy effectivement d'aller vers li ngay wax noonu un programme mm un vrai programme comme ni palu amee woon programme mhm. gis nañu résultat yi mhm. ni tuberculose amee programme ni sida amee programme mhm. jot nañu am un programme santé mentale vraiment doté d'un budget pour que quand même parce que lépp nag quoi qu'on dise le nerf la guerre c'est c'est les moyens mm -hmm. moyens pour pouvoir mettre en place des services moyen -hmm. pour pouvoir faire la sensibilisation moyens pour pouvoir aller au-delà de Dakar aller dans les régions et euh, parce que ñooñu aussi am nañu droit euh, quand même ci euh, ñu fekk leen fa ñu nekk jox leen lañu soxla ci wàllu santé. Mhm. est-ce que tey jii euh, ci traitement yi nga xam ne da ngeen koy defal ñi amee li nga xam ne mooy autisme dafa am ay garab yu ñuy naan tout le temps. Mhm. wala yan façon traitement lañ leen di administrer. voilà euh, ci wàllu traitement bi amul benn garab boo xam ne bii boo ko joxee euh, ku am autisme rek mu wër malheureusement. Mm-hmm, mm-hmm. parce que c'est euh, chronique. voilà amul donc. Ah, mm. par contre am na ay médicaments yoo xam ne yi mën na dimbale xale bi par exemple xale boo xam ne day jaxasoo tout le temps di yuuxu di dooraate du nelaw guddeeg yooyu am nañu ay garab yoo xam ne mm-hmm. yi mën na ko mën na ko dalal. bu dee xale bu hyperactif la di yëngatu tout le temps. am na aussi ay garab yu ñu ko mën a jox mu dal parce que dal bi yëpp c'est pour qu'il soit disponible ak euh, ak aide bi ñu ko mën a jox parce que bu dee autonomie la man mënta demal boppam gaanuwaay day saw ak ak cabinet yëpp ci euh, couche yi da koy def. Mm-hmm. Euh, foog nga jàngal ko et ko foog mu dal benn ñaareel ba bu waree dem école il foog mu dal. pour mm-hmm. mën a am comportement bi ñu xaar ci élèves. Mm-hmm. Euh, ñetteel ba euh, am na ay maladie yuy ànd ak autisme li ñuy wax comorbidité. Mm-hmm. bokk na ci benn boo xam ne par exemple épilepsie. souvent mm-hmm. euh, autistes yi dañuy amaale souvent de l'épilepsie pas ñëpp. Mm-hmm. mais ça c'est fréquent. mooy épilepsie mooy ñoo ñu di def crise yooyu di say di daanu di say ba xëm su nelaw soog a yeewu kooku aussi bu ko amee foog nga faj ko loolu yëpp ci faj bi la bokk au delà de ça ñun am nañu à trois services de pédopsychiatrie yoo xam ne loolu rek mooy seen liggéey donc euh, jël xale yooyu indi leen li ma wax hôpital de jour boobu nekk ak ñoom toute la journée di leen stimuler euh, dans plusieurs domaines di leen jàngal plein de choses et euh, <coughs> heureusement Euh, xool nañu par exemple ci depuis hôpital de jour par exemple boobu caaro bi fi amee ba léegi. Mm. xale yi fi ñëw ñëpp dañuy progresser am na xale yoo xam ne biñ fi ñëw xalaatoo woon sax ne a wax. Mm. tey ñu ngi ñu ngi ñu ngi wax am na ci ñoo xam ne biñ fi ñëw boo waxee ñoom dañ la faale dóoraatee wala yuuxu rek lañ xamoon. Mm-hmm. aujourd'hui daal nañu ba ñu ngi leen di jéem a dugal ah, euh, école. ah pour ñu commencer nag euh, fortaatu ci njàng mi tuuti. Mm-hmm. donc yooyu yëpp ci wàllu faj mi la bokk. Mm-hmm. ñetteel ba il faut que dans la dans les familles ci biir kër yi quand même ñu dimbale aussi parents yi euh, accompagner leen parce que nekk ak euh, doom boo xam ne nii il est différent il a des problème de comportement neexul ci biir kër. voilà bu dee nga loué moom facilement euh, ñu lay joxoñ baaraam foo toll euh, teel sa doom ji yeneen euh, kenn mënul nekk a yéen et mm-hmm. mais au delà même de ça les parents dañuy souffrir en silence du regard des autres. Mm-hmm. parce que buñ génnee ci mbedd mi danañ xool xale bi mais danañ xool surtout waajur wi te waajur bi moom xool bi moo koy gën a métti. Mm-hmm. lu tax sama doom mel ni et cetera et tout. sans même aller sur les problèmes de couple. parce que gis nañ ci cas yoo xam ne papa ji day jóg ne carrément man kii du sama doom wala ñun suñu xeet amul yi hmm. donc euh, demal ak sa doom foo xam hmm. donc muy doon ay forme de souffrance yoo xam ne yi te fokk waajur yi taxaw nekk en bon santé psychique pour mën a dimbale seen doom s'il déprime wala bu fekkee ne ñoom seen bopp ni koy dundee dafa métti duñ mën a dimbale xale bi hmm. yooyu yëpp ci wàllu faj bi la bokk parce que foog nga faj parents yi fekkee ne ñoom seen bopp euh, ni ñu koy dundee métti na Euh, rus beeg euh, di nëbb xale beeg parfois ñu koy métital ci biir kër gi tout ça tey ñu ko parce que ñu xamuñu comment faire avec l' enfant. Mhm. donc dañ leen di jox ay moyens dañ jox dañ di capacité les parents pour que à la maison ñu mën a gérer aussi xale bi. Mhm. buy def crise ñu xam nañ koy gérer nu ñuy waxee ak moom ñu ñuy interagir ak moom pour que euh, loolu bu génnee dans la société mën ko appliquer. Mhm. donc loolu yëpp ci wàllu wàllu prise en charge bi la bokk. voilà docteur euh, Mamadou na Diouf nga nekk pédopsychiatre tey ñu waxtaanee li nga xam ne moom mooy autisme euh, démb dama seetaan ki nga xam ne moom mooy président France di Emmanuel Macron muy wax ci autiste autiste yi <laughs> dafa def benn vidéo jël tempsam lu tolloog cinq minutes euh, di di maanaam di nemmeeku ñi nga xam ne ñoom ñooy autiste yi mais ci biir waxam li ma ci gën a interpellé mooy def leen ni Euh, je sais que ni dangeen di souffrir ci jamono ji ak confinement bi te beeg yooyu. donc est-ce que ça veut dire que tey autiste dafa war di génn tout le temps. waaw non bo bokk na ci alors ñu saluer loolu on aurait aimé que ñun aussi suñu autorités yi euh, <laughs> bien que Covid ba bien que corona baa ngi fi. Mm-hmm. ñu gëstu aussi parce que journée la boo xam ne bii d'habitude dañ doon def activité corona bi tax na mënuñu ko def. absolument mais mënoon nañu la gëstu un un clin d'œil. Mm-hmm. ni président Macky Sall defee woon ak rax raxasu mi def vidéo raxasu. Mm-hmm. mënoon démb benn kii ne ah autistes yi parce que euh, li tax li président Macron def am importance mooy. Euh, autistes yi dañuy am ay rituel mhm. seen euh, activité c'est souvent euh, très stéréotypé maanaam li ñu tàmm def boo ko xañee même bu dee benn jour la lu changé ci seen programme lu changé ci seen activité daf leen di sonal. Mhm. parce que xamuñu ko. ñoom liñ xam mooy loo xam ne li dafay nekk habituel maanaam programme bi lundi lii laa war a def léeg-léeg lii mardi léeg-léeg lii mais dañ koy enregistré. Mhm. bu amee lu ñëw changé ci programme bi lundi wala mardi te préparé woo leen ci rek problème am. d'accord donc bu ñu amoon habitude par exemple tous les mercredis dem parc foofu yi daje fa yeneen xale dem ci balançoire fo mercredi bi ñëw nga ne tey amul rek ba moytuwul journée boobu moom journée journée bu métti la doon ci ñoom. Mhm. donc euh, bu dee France par exemple dañuy am ay programmes xam ne sur la l'année. des mhm. programmes bien structurés fi leen war a yóbbu ak et donc loolu bu yëpp jaxasoo ni ñëpp toog ci kër ga rek ba moytu toog ci kër ga day métti trop. Mm-hmm. dañuy def ay crise tout le temps euh, du ñu lekk am na ñoo xam ne ñu replier wu sur eux. Mm-hmm. régresser complètement maanaam ak yi ñu amoon yëpp ci développement bi yëpp delluwaat ginnaaw comme si mosuñu leen mosuñu leen a faj mosuñu leen a def donc loolu loo importance su euh, ñuy maintenir un minimum d' activité donc Macron mu ngi wax ci vidéo bi ne. Mm-hmm. Euh, danañ assouplir règle confinement yi pour ñi ci amoon des activités dehors. Mhm. ñu mën leen a may ñu dem def activité yu ñëw. loolu bokk na aussi ci la voilà donc ci lu leen di mën a dimbale. Mhm. c'est dommage ñun fii suñuy autorité peut-être yegguñ ci boobu niveau wala conseiller yi ñu waroon conseiller. Mhm. pour que ñu mën ko def euh, xëy na amuñu woon xalaat boobu pour def ko. voilà euh, léegi euh, centre d'accueil yi parce que ñoom dañuy nekk parfois ci ay centre est-ce que centre yooyu. am na fii ci lu doy peut-être pour euh, vraiment ñu mu leen di mën a accueillir ñu mën a def seen activité ak yeneen i mbir yoo xam ne ay peinture ay yeneen ak mm-hmm. yeneen daal mm-hmm. ay travail yoo xam ne daal dina leen mën a occuper waaw euh, doyul mm. am na fi mais doyul donc maa ngi la doon citer euh, déjà ñun au niveau du soin mm-hmm. am na des centres par exemple fii Thiaroye donc mooy raffinerie Mbao am na Fann fi ñuy wax kër xale yi am na jam ñaajo euh, hôpital d'enfants jam ñaajo am na fa donc ñetti centre ah, ci wàllu soin ñett yooyu ñoo fi am yoo xam ne ñu mën leen accueillir di leen proposer des activités thérapeutiques mhm. donc activités thérapeutiques yi euh, mën naa joxe benn exemple xale boo xam ne tout le temps day def ay crise mhm. di yuuxu di door ci miir bi di mbëkk boppam ak yooyu c'est parce qu'il est très angoissé mhm. bu ñëwee euh, am na des activités qui vont cible qui vont cibler ces angoisses activité yooyu mën na nekk par exemple balançoire gis nañ ne xale yu bëri euh, boo leen tëjee entre quatre murs pour def loo benn activité du sotti. Mm-hmm. il suffit que nga génne leen yóbbu leen ñu balancé wu xam nga balancé moom njoowaan ah. Uh-huh, uh-huh. njoowaan voilà dafay dafay dalal xel dafay kii. Mm-hmm. ça les apaise pendant quinze minutes après ils sont disponibles. pour dugg dans les apprentissages wala pour jàng wala pour déglu la wala suivre la ci li nga ko donc benn ñaareel ba am na psychomotricité donc euh, kooku aussi médical la sànq tudd na orthophoniste yi. Mhm. ak beneen paramédical bi ñuy wax psychomotricien. moom ci xale yi yëngu xale yi nga xam ne ni ñuy war a bouger seen corps ni ñuy dundee seen biir yaram ak yooyu dafa amee jafe-jafe. Mhm. moom moo ko yor dana jëm ci ay massage ak ci yenn activité ki yu xaw a niroog kiné yoo xam ne day def ak ñoom centre yooyu à part ñett yi ma la wax am yi ci des yëpp privé la maanaam. ay ay nit a jóg seen moyen wu bopp ubbi ko. Mhm. pour que pour que mu fonctionne eh, amuñu un soutien de l'État donc euh, malheureusement euh, euh, seen fonctionnement euh, dañ ko day dellu si ci parent yi ñoom ñoo war a fay bu ñu fayul rek école bi du dox donc malheureusement dafay cher mën naa ci citer quelques écoles centre Aminata Mbaye bi nekk Scat Urbam Grand Yoff mhm. day accueillir des enfants Euh, fii ci euh, banlieue bi am na ñaari école inclusive yu nekk euh, Rufisque mais seen doole aussi mooy mooy loolu sinon y a des écoles privées biir Dakar surtout qui essaient de mettre en place des classes spécialisées pour quand même scolariser ces enfants qui ont des des besoins particuliers mais voilà souvent pay mi dafay cher trop boo ci bëggee boole fay école bi xaalis bu bëri fay des séances de psychomotricité des séances d'orthophonie xam nga boobaa dafay métti. Mhm. boo yoree ñaar ñetti ñeenti xale souvent parents yi choisissent ah donc clairement d'investir ci xale yi nga xam ne ci lañ gën a am yaakaar que. Mhm. ñi ci des. Mhm. c'est ce qui est vraiment dommage. donc centre yooyu c'est à euh, dañ ko war a multiplier mu gën a bëri sur Dakar parce que besoin maa ngi fi. ñun récemment on a ouvert euh, fii toujours ci euh, Thiaroye donc Baaw. ubbi nañu benn euh, benn hôpital de jour pour les adolescents loolu amu fi woon. Mm-hmm. centre yi ma la tudd ñëpp mooy kër xale yi faan wala ñun fii wala jam ñaajo ay xale la ñuy jël bi douze ans après douze ans. Mm-hmm. à la limite les parents se retrouvent seuls avec leur enfant ñi ci am chance ut am école bi ñu leen dugal xayru ñi ci des. toog kër ga ñu mujj toog kër ga. voilà donc ñun ubbi nañu récemment il y a un peu moins de six mois benn euh, benn centre pour les adolescents. donc euh, douze ans et plus et que kooku noonu euh, da ngay gis parents yi naan la ay ah, kii di ndimbal la parce que au moins dañ leen fi mën a continuer soins yi ñu doon def continuer ko continuer leen jàngal euh, bu ci ñoo xam ne ñi dem nañ ba war a mën a jàng métier bu ñu amee chance de par exemple Aminata bay am na ay métiers yu ñeen fu mën a jàngal solon compétence yi ma doon wax ci sànq. Mm-hmm. ñu mën a def ci informatique bi ñii ci métier manueli yi restauration. Euh, ñii ci menuiserie yi ñii ci euh, couture wala leneen ak leneen loolu dana leen mën a dimbale parce que euh, loolu aussi ci épanouissement nit ki la bokk. la bokk mais centre yooyu donc gis nga ci Dakar doyul. Hmm. ci région yi moom. mooy loolu vraiment voilà xaale wuñu ko et c'est hmm. vraiment vraiment lu ñu lu lu ñu métti la parce que hmm. des fois dañuy jógee dañuy jógee masalan Kédougou wala Diourbel wala Louga wala maatam ñëw. yaakaar ne ñu ñëwee danañ fi am euh, li ñu soxla ci wàllu soin mais xam nga bu dee ku war dem hôpital le jour tous les jours tous les jours tous les jours boo dëkkee Matam du sotti. du sotti. dañuy obligé ñun di jéem a xool comment faire pour par exemple hospitaliser l' enfant et pendant un mois et pendant dure un mois boobu ah xale bi di ñëw hôpital le jour tous les jours maanaam sur un mois pendant ce temps ñu jéem capacité les parents pour que bu delloo Matam wala Kédougou mën a moom ci boppam nekk le professionnel aidant de son enfant loolu aussi. Mhm. Euh, même pays yu développé yi mu ngi commencé am. dañu gis ne professionnels yi dans tous les cas dafay manqué. et que boo capacité le parent mën na nekk aussi un auxiliaire ci wàllu ci wàllu faj bi à la maison. Mhm. voilà euh, pour jeexal peut-être euh. émission bi dañu bëgg peut-être bu dee am nañ mën nañ am situation. est-ce que tey xam ngeen ñaata autisme autiste ñoom ñoo am fii ci réew mi à peu près wala aussi euh, ci jigéen ñi góor ñi lay gën a dal genre yooyu noonu tranche d'âge beeg yooyu euh, pas pas tranche d'âge bi puisque xale yi ñoo koy am buñ dañ koy judduwaale mm-hmm. mais plus ci côté daal euh, personnes yi nga xam ne ñoom ñoo koy gën a am maanaam genre yi koy gën a am jigéen wala góor sexe bi aussi ñi ñaata nit ñoo ko fi am oh. ah ci études yi li ñu wane mooy effectivement góor ñi ñoo ko gën a am maanaam boo jëlee ñett wara ñeenti ñeenti xale ñi autiste ñett ñey góor la ñu doon. Mhm. Euh, muy benn ñaareel ba nag ci wàllu chiffre yi Sénégal malheureusement amuñu amuñu chiffre yi Sénégal. Mhm. mais li étude internationale yi wane mooy maanaam euh, bien que euh, race bu ne wala continent bu ne wala ethnie yu ne dañu am seen particularité dañu jàpp ne autisme dafa nekk un trouble boo xam ne si universel maanaam xeet boo jël c'est les c'est à la limite c'est les mêmes chiffres mm-hmm. nga fay fekk donc études yi muy Europe muy Amérique muy Asie yooyu ils donnent à peu près les mêmes chiffres. Mhm. mooy maanaam boo jëlee euh, junni xale yu nekk mille enfants mille naissances yoo gis y aura six ou sept enfants yoo xam ne yi danañ am autisme boobu. d'accord dernier dernier résultat yi génn au niveau Amérique du Nord États-Unis Canada yi wane nañ ne loolu sax wàññeeku yokku na. Mhm. ñoom dañ naan la euh, quatre vingt quatre vingt enfants yoo jël kenn kii dafay nekk autisme. loolu boo ko doon extrapoler sur Sénégal sur à peu près quinze millions d'habitants mm. normalement on devrait autour de quatre-vingt-dix mille à cent mille enfants mm. qui devraient souffrir de l'autisme maanaam téeméeri junni à peu près xale yoo xam ne yi am nañ feebar boobu mm-hmm. question bi mooy fu ñu ne parce que effectivement ñun ñuy jot tollut noonu mm-hmm. jafe-jafe ñun bi ñu am pour am des chiffres nag au niveau Sénégal ak Afrique yëpp ñaari mbir a ko war mm. waral benn bi comme suivi PMI pédiatrie c'est pas obligatoire pour les enfants donc xale euh, yi souvent ils restent à la maison. Mm la scolarité n'est pas obligatoire non plus donc xale ba scolarisé wul repéré wuñ ko niveau des services de PMI doo ko xam. Mm alors que yeneen système yi organisé ailleurs xale bi mënta rëcc. Mhm. parce que dans tous les cas obligatoirement il faut que mu am scolariser mu am handicap ou pas donc. Euh, service yooyu ñooy mën a joxe chiffres yi mm. ñun mën mënuñu ko am dañu jàpp ne xale bi daal bon dara jotu ko mënul dem école reste à la maison mm-hmm. donc wala mu ngi ci mbedd mi di wër kooku day jafe nga mën ko nga mën a am les statistiques am nañ des chiffres au niveau des hôpitaux ñi ñëw am nañ ci ay chiffres effectivement on on est souvent sur ce type mën am téeméeri xale yoo jël dag ci am benn ñett yoo xam ne am nañu feebar boobu donc ce qui ce qui est beaucoup boo ko au niveau des millions d'habitants d' accord euh, pour jeexal rek émission bi docteur euh, Mamadou Lamine Diouf may fàttali ni yaa ngi nekk pédopsychiatre ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak mbokki auditeurs yi aussi lancer message à l'endroit peut-être des parents mais aussi des autorités. waaw di la gërëm euh, ndax ci occasion la ñu nga doon ci sensibilisation ñu sensibiliser ñaaxaat ñaaxaat les pouvoirs publics ñu gën a jàpp ci ci xeex bi qu'on soit doté d'un programme quand même pour euh, gën a mën a améliorer la prise en charge de ces enfants-là mm. qui ont autant de droits donc ils ont autant de droits que yeneen xale yi donc euh, bu ñu leen ko xañee rek leen les soins ñu leen la scolarité xañ nañ leen droit donc mm -hmm. ça c'est au niveau de yi convention yi signé au niveau international mm-hmm. wax nañ ko euh, ñaareel ba attirer l'attention des des parents sur le fait que am nañu quand même bien que moyens yi doyul am nañu ici fii ay services yoo xam ne yi am na ndimbal ñu leen mën a jox euh, bu ñu bàyyi rek xale yi ci kër yi foofu wala topp maaman yi euh, ba xale bi li mu war a am ci soin ak ci ndimbal du ko am bu boobaa bala bu ñu yegsi ci ñun day fekk xale bi màgg commencé di dóoraate kenn mënatu ko supporter ci kër gi ñu ne ah léegi kii nga ko yóbbu ñu pikiir ko wala ñu def ko lii alors que buñ teeloon a ñëw très tôt. Mhm. xale boo am deux ans mosoo dégg benn kàddu benn baat ci moom rek war nga jàpp ne kii am na problème. Mhm. donc nga jóg bu dee Dakar boo demee Fann am na kër xale yi bu dee fii ci banlieue bi am na en face raffinerie mbaaw donc hôpital psychiatrique Thiaroye Thiaroye la ñuy wax parce que noonu la tuddoon depuis le début mais Mbao la ne. Mhm. en face raffinerie bi am nañ fi service boo xam ne bi euh, dañuy toppatoo xale yooyu. boo demee jam ñaajo aussi am na fa service bu bees boo xam ne bii aussi loolu lay loolu lay toppatoo donc yooyu au moins am na et puis même bu dee ci région yi ñu ngi jéem a fexe ba quand même euh, ku jóge foofu ñëw fexe ba booy dem daal nga yóbbaale loo xam ne yi ci wàllu garab pour dalal xale bi ak ci wàllu euh, capacité à communiquer avec wala dimbale xale bi nga am loo yóbbaale loo xam ne boo demee nag boo ko appliqué. Mhm. da nga gis ay résultats. D'accord. Enfin, lancer un appel à, aux mécènes de ce pays, am na ñoo xam ne que ce soit fondation yi euh, que ce soit des des des bénévoles des individuels ñoo xam ne ñii mën nañoo dimbale. Euh, nous on a fait des requêtes au niveau de fondation yu bëri pour ñu jàpp ci. Mm-hmm. aujourd'hui suñu objectif tey jii mooy euh, xale yi ñëw ci suñu hôpital de jour bi ñun fii Mbaaw. dañuy jógee euh, yëmbal dañuy jógee caaro yi dañuy jóge mbaaw dañuy jóge tëngéej war di ñëw fii xam nga dafay jafe am nañ jógee ba Pikine Géejawaay te jafe chaque jour parent bi xëy jël doomam dugal ci oto indi déposé ko fii bu treize heures quatorze heures jotee mu jël si ko indiwaat ko foofu tous les jours xam nga dafay jafe. Mhm. ñun suñu objectif tey mooy fexe ba am un minibus en cas de ramassage boo xam ne nii moom mooy dem jëli xale yi le matin comme école yi ni koy defee. Mhm. indi leen. ñu li ñuy ñu war a def fii ci faj bi ñu def ko bu dellu jotee kaar bi yóbbu leen dana doon dimbal lu rëy rëy rëy rëy au niveau des au niveau des familles. Mm-hmm. et te ñun aussi dinañu dimbale bu baax ci wàllu faj bi donc may lancer un appel képp ko xam ne nii xëy na sooru xale yooyu yitteel na la. Mm-hmm. que y a des peut-être des des des choses à faire nous on reste euh, réceptif à d' accord voilà en tout cas ñun ñoo lay jaajëfalaat bu baax a baax di la gërëm di la sant docteur Mamadou Lamine euh, Diouf nekk pédopsychiatre euh, fële nga xam ne moom mooy ca hôpital euh, psychiatrique bu yi nekk ca mbaaw donc moom mooy chef de service bi foofu le te ñu doon waxtaanee lii di autisme ñu lay jaajëfal bu baax encore une fois docteur ci disponibilité bi. merci beaucoup madame Diallo maa ngi leen ñuy remercier également auditeurs yi nga xam ne ñoo ñu doon déglu ci la 97.5 Ouleymatou Diallo moo nekkoon ci kaddu gi di leen dig daje vendredi prochain incha allah 18h jàpp 19h beneen émission SOS santé ak beneen invité ci la 97.5 jërë ngeen jëf.